boo nekkee ci gox suñ borom dimbali la ba nga yaakaar ni xëy na am nga loo fa tekki ba ñu mel ni zone gestu la gis ni yow mii war ngaa war a mën a doon parewu zone bi loolu sant yàlla lañ ci dem te di ñaan jeudi si teew yëpp kenn ku ci ne suñ borom may la gudd fan ba nga yegg ba ñu lay parenee final bu mel nii. loolu li ci des moom mooy ñu xam ni final bi final la boo xamante ni mënu ñoo gagné gagné gagné ba mu génn géejawaay. Mm-hmm. tandis que lu ñu gagné gagné gagné biir géejawaay lay yam donc. et eh, damay koy faral di wax sama xarit yi dama naan leen fan yi ñu nekk ci mouvement nawetaan tu vas te rendre compte que y a beaucoup de moyens beaucoup de temps beaucoup de temps yoo xam dañ ko et pourtant tu te rends compte que boo gañee coupe bi dans le dara du ci top. Mhm. donc ça qui veut dire que jarul tamit yenn yi jarul lu bëree bëri par contre li jar esprit sportif fighting spirit la light mais fighting dans le sens d'une émulation très très très saine parce que nous xam ni tey ji lépp loo mën na ci yéen ñi ay ambassadeur ngeen ASC bi qualifié final xam naa ne doo leen ay yaafus ñafe ngeen ko am ngeen ay valeur am na loo leen gëm parce que dana métti métti boo xam ne boo gëmul dara doo yegg fenn fi valeur yooyu vraiment moom lañ leen di ñaan ngeen transformé ko mu doon ay valeur yu positive yoo xam ne moom ngeen di yóbbu ba mu tax def tax si seen i supporters pour que mën a ñoom tam ñëw stade ak esprit bu positif a positif L'année li je pense que zone bi ñu parrainé président la il a été très très très sensible ci marque honneur boobu ñu ko defal. moo pour rek d'une manière exhaustive tamit parce que li ñu naan nit bu la defalee teraanga ba ñëpp gis ko dang koy wax ba ñëpp dégg ko. je pense que ñun ñëpp la sagal. parce que ñun ñëpp géejawaay lañu dëkk sagal boppam tam parce que géejawaay la dëkk joxna wa zone 2 millions.

que yéen ñi tey di yàlla may leen ba ngeen génn ci phase départementale yi ngeen sori ci trop te à chaque instant tamit ngeen bañ a fàtte ni président la Diop doom la ci géejawaay la dëkk comme ñun ñu et que bu ñu demee phase départementale dafay doon géejawaay suñu yëf donc dafa am loo xam ni dafa am luñ ci war a dem représenté ji ci biir Sénégal ci biir région bi donc di ñaan vraiment yàlla def leen ngeen doon suñu ay ambassadeur ci phase départementale yooyu te yàlla def ngeen doon ambassadeur yu ko jar ambassadeur yu vraiment du ñu dañuy daanelee suñu kàddu vraiment di leen souhaiter encore une fois mu doon loo xam ni dañ ciy génn dañ ciy dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin mu doon final boo xam ni géejawaay moo ciy jaari yëkkatiku ci man du ma ne yàlla na ASC Notaire gagné du ma ne yàlla na ASC jamono gagné dama naan rek képp ki nga xam ni moo ci mën te mu gën a rafet ci géejawaay rek yàlla na ko jox yàlla na ko yàlla suñu borom jox dara maa sant yéen ñëpp gërëm yéen ñëpp te di rafet parce que Lat fi la jangé nek cadre ci dëkk bi tay buñu ñu ay milliers de cadres nekk Guédiawaye ñu choisir ko c'est pas un hasard donc euh, répété goko légui je pense que de mémoire même ci euh, expérience depuis que ma suis ci euh dan mi nek sanc bi duma duma ma c'est depuis Daouda Thiam la gëj a gis ku nekk zone avec autant de moyens il a remis à toutes les ASC chacun un jeu de maillot. J'aurais une valeur de 2 millions et quelques pour la prise en charge de l'organisation de la finale. Chapeau à, à, M. Et euh, on était 12 ASC. Il n'y a que deux ASC qui sont sortis pour jouer la finale. Les quatre ASC vont représenter la zone 2 en phase départementale te loolu yaakaar naa Sam Notaire moo tax ñoom la ñu représenté dañuy joué ak beneen commune muy Ndiarène Limamoulaye donc lii bu ngeen ko defee dafay nekk loo xam ne lu ñu koy ñu ngi koy rafetlu en tout cas au nom de la zone ñu ngi koy remercier très sincèrement di ko ñaanal aussi li mu bëgg ci géejawaay yàlla na ko yàlla defal man sa soxna sama xarit soxna la ma nga rayaal ci manifestation boobu donc euh, affaire sociale yi muy def

wax dëgg yàlla loolu daal moo ñu fi noonu li ci xam naa dañ koy bàyyi si rajo booy ko parce que am na ci loo xam ne dañ koy yokk équipe ni comme ni ko defalee ñëpp euh, loolu ñu ngi bàyyi si rajo loo xam ne pour entre supporters yi ak euh, ASC bi ak membre de population bi ñu ngi leen di gërëmaat encore ci turu euh, président Lat Diop di bàyyi Sirat Diop aussi mu mottali li ci des bu fekkee ne am na loo ci moom nga ñëw yëg on s'entend même pas quoi. mooy bu ñu déggante sax ma ni. ah

ma bu bu fekkoon ni tey ASC bi góorgóorlu lool ba yegg final communion bu mel nii danañ ko raté comme li nga doon wax léegi da nga naroon a bàyyi daaw donc voilà remercier nañ la fay nañ la. voilà donc di di di au nom président Lat euh, moom moo waroon a teew fii tey mais je pense que li nga xamante ni moom moo ci am solo c'est surtout si seen kanam.

ku sant yàlla lay doon sant yàlla parce que damay wax toujours rek ni nit ki fépp ko suñ borom yeggal rek waru ko ndamoo waru ko tiitaroo da ngay jàpp ni tout simplement sas la charge la parce que defaloo suñu borom lu fees ay bëtam ba mu teg la foofu donc li nga xamante ni moo ci am solo mooy dañoo màggee géejawaay doon ay doomu géejawaay lépp loo xamante ni suñu borom daf ñu ko suturalee Nous koy delloo si Ce c'est pas parce que exploit la wala mais c'est une question de responsabilité loolu la wax toujours et que suñu borom boo fekkee ni da ngaa yore daf la jox ñaar fukk xam ni ñeen ñeenti dërëm nga soxla pour dund ça veut la ca des am na lu mu ci namm ci yow maanaam mooy nga bokk kook jaamu yàlla yi ci li nga xamante ni daf leen intéressé et je pense que président Lat tey ci loolu lay dox ci social boobu lay dox ci engagement am ci géejawaay ci loolu lay dox ci nekki nag doomu aadama yi ci loolu lay dox mu doon koo xamante ni xëy na rakk la mais du duñu jógti di magnifier suñu fierté ci moom parce que quand même mënoon na doon suñ borom yeggal ko fenn fi mu taxawee neneen mais ñun ñii ànd moom xam nañu bu baax baax nan la taxawee donc lii nga xamante ni moo ñu fi dajale tey muy final bu mel nii vraiment duñ def lu dul ñaanal leen parce que ce qui est mooy lii ngeen yegg si tey processus la

ba génn géejawaay biir géejawaay lay des quel que soit équipe bi gagné ndam li biir géejawaay lay des ndam li xëy na ñu am tuuti pincement au cœur bu ñu gisee benn parti doomu géejawaay triste mais dinañu tamit bëgg trop bu ñu gisee beneen parti doomu géejawaay kontaan parce que dana am doomu géejawaay yoo xam ne ñooy jël coupe bi donc vraiment di wax rek que supporters yi nañu comprendre ne ñun ñii ñëpp ay ay mbokk lañu ñun ñii ñëpp ñoo dafa am loo xamante ni ca suñu borom la déparé géejawaay dañ ko bokk ñun ñëpp te mënuñu koo séddoo donc loo xam ne liñ ci war rek mooy dëkkee ko mu doon dëkk bu rafet surtout surtout yéen président yi da ngeen am responsabilité bu mag ci loolu parce que derby la daanaka maa ngi gis bi ñuy ñëw léegi pneu boo xam ni benn partie bi dañ koy peinture bleu blanc beneen partie bi ñu peinture ko ver blanc loolu pour man dafa jara sax photo def ko carte postale parce que ça signifie beaucoup de choses xam loolu ça di dire ay mbokk ñoo seex donc vraiment di leen wax daal ñun liñ ci ñaan rek di ko ñaan suñu borom di leen ko ci ñaan mooy wax ak supporters yi gën leen conscientiser sensibiliser leen ba ñu xam ni lundi du adversité mais c'est une grande fête c'est une grande fête de la ville de Guédiawaye et parrain bi comprendre la compréhension boo xam ni quand même je pense que ci li suñu borom dénk ak si néew góorgóorlu na ci ci zone bi je pense que pour rek gën ko expliquer ñëpp comprendre ko zone ñi nga xamante ni ñoo ngank affaire bi doon quand même ay ay passionné il faut les saluer parce que vraiment jot nañu def ak ñom ñaar ba ñetti réunion mais man lima sentir ci ñom mooy c'est des gens qui veulent aller quelque part Té lolu adduna bi fi ñu toll nii diggante dem ak taxaw loolu mooy def différence bi moom mooy Pastef ak ngëm-ngëm ci li ne te ñoom vraiment gis naa ni bëgg nañ ko gëm nañ ko te am na loo xamante ni yéene nañ ko géejawaay donc moo tax loolu tamit ñoom biñ ñu ko waxee ñu sentiré ko noonu noonu lañ ko waxee parrain bi tamit moo tax mu def ci li mu ci def je pense que ASC bu ne daanaka dimbalee na la cinq cent mille pour ASC seniors yi ASC cadets yi ku nekk dimbalee na la deux cent cinquante mille donc wa zone sen bop mu dimbalé len pour sen frais d'organisation 500 000 nga bolé ko muy enveloppe 2 millions derrière ça je pense djel nañu tamit si sen recommandation encore une fois 12 ASC ou zone bi yep les primer len ay mayo ASC yi nga xamanteni ñom final survêtement ak jeu de mayo ak ballon ak euh, trophée yi nga xamanteni ni mom lañu définir donc vraiment nous don lo xamanteni dañ parce que dañ ko dañ sentir si hauteur honneur bi nga xamanteni nii da ngeen ñu ko defal ñu comprendre ko bu baax leneen li mooy xëy na président comité supporters yi loolu ñun góor a loolu ñoo koy def si suñu bopp waaw indil indil nañ leen 200 t-shirt yoo xam dañ leen ko may ak cent mille yoo xamante nii pour ñoom ñu mën a assurer seen transport dem stade waaw vraiment moo tax dañ leen di wax rek nañu yàlla may ba tay jii équipe yi nga département bi départementale frère il est à leur écoute il est disposé à aider il est disposé à s'engager à côté de ses frères et donc vraiment résumé message bi nga suñu borom may ñu ñu dajewaat fii ay daje daje daje ci mbégte bu mel nii. maa ngi sant dalal dalal jàmm. di la xamal ne seen ñëw di ngeen ñëw. fierté la si Géejawaay. fierté si commune Ndiarème Limamoulaye mais fierté la si ASC Jamono 2. un Lat Diop kenn si moom kenn ku bokk si moom bu déplacé woo ñëw fii si Jamono 2 jamono daf ko war def une grande fête ndax lac c'est notre lac avant tout tey supporters yi bari fii bu ñu gesoo gis délégation bi gis un frérot quelqu'un qui parti qui fait partie parmi nos parents kooku déjà c'est autre chose frérot tant que mu ngi nekk ci lac kenn bu ko neexee mën na may ñoo seet si lac na frérot rek doy na un représentant si Guédiawaye je parle en connaissance de cause. Autre chose, je ne te parle même pas de la délégation et la qualité de la délégation. Mais zone bien on remercie beaucoup les représentants de la zone. Ainsi, ah, par le président Yousseli. Non seulement nous ménager les AIC au niveau de la zone 2, mais nous avons aussi le rôle de patriotisme dans notre quartier Diamono 2 et je pense que c'est le milieu l'endroit le plus approprié pour nous remercier. amul le président les vice présidents qui sont ici présents la section féminine les supporters l'équipe handball de 2 tout le monde est satisfait content de la présence de la et surtout les vétérans, vous voyez, parmi les vétérans, les vétérans aussi sont là et ils sont aussi fiers. Donc, c'est là, je expliquer avec le GAT. Le la job, c'est le panier de la finale. Nous disons que j'ai si fair play, nous sagal ko. Nous que gagner si fair play, nous sagal ko. Nous jël coupe bi andi ko Cheikh Wade mais coupe tok nous dinañ que andi la job inshallah. le représentant des supporters est là. waaw asalaamaaleykum mbokki internet bu Guédiawaye info tey li lañ la andiloon mu doon visite bi nga xamante ne tey le père Lat Diop waroon na ko def au dos ASC yi nga xamante ne ñoo war a seq la finale de la zone 2 de Guédiawaye prévu lundi bi nga xamante ne moom lañ ko war a joué tey rakam daal koy teew magam daal koy teewal fii daal tudd Sidaat Diop ndax président Lat dafa am gànt ñëw na daal def visite bi seet si ñaari ASC loolu la jot a def ak ñoom lancer un message également daal sensibiliser les supporters inciter leen si la non violence daal joxe rendez-vous euh, le 23 incha allah pour la grande finale. loolu daal moo nekkoon li nga xam te ne tey moo waraloon suñu déplacement di leen remercier di sant bu baax aussi suñu technicien le grand technicien Bekay Koundoul.